bëggee di jot ci vidéo yu am njariñ yi bàyyi ko fii ci sama diine TV da ngay ñëw bés fii ñu bind sabonné soo noppee nga daal di activé cloche bi mooy waral benn njariñ du la raw. Saad ibn Abi Waqaas moom ci boppam daa ànd yonante bi ñu dem ci jenn jigéen fekk ko mu tiim ay kem bi tàndarma mbaa ay doj yu sew di ca tasab maanaam di maanaam ba noppi nag di wàññi la muy sàbbaale yàlla. kembi ma yooyee mbaa doj yu sew yooyee yonante bi ne ko teema laa wax loo xam ne soo ko waxee mooy gën ba noppi gën a yomb di jar ngay yor ay doj mbaa ay kemb di tasat rek di wàññi dal ko ne waxal ñaang yi neel subhanallahi xaddada ma xalaqa fi sama mu li muy tekk nag mooy baa ngi tudd sellum yàlla tudd gu bare bari gu toll ne lim sàkk ci asamaan ci mbindeef maa ngi koy tudd tudd gu sell gu toll ne lim sàkk ci suuf ci maa ngi koy tudd tudd gu sell gu toll ne lim sàkk mu nekk diggante asamaan ak suuf ci ay mbindeef maa ngi tudd yàlla tudd gu sell gu toll ne limut li nga xam ni mar na koo sàkk te jotagu koo sàkk gannaaw subhanallah jooju maa ngi ci teg allah akubar te yéene mu baree bari ne li ñu yéene wax ci subhanallah alhamdulilahi noonu laa ilaha illallah noonu laa hawla wala quwata illa billah noonu kon ñaan gi mi ngi tàmbalee ci subhanallahi xadada ma xalaq fi sama ba ci wala hawla wala quwata illa billahi misla dalik booy jàng safiyatul amaan bu sëriñ bi wessar bi ñaan googu am na ca